الماء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 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waa M-Media groupe Nourou ni ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa di julli ci yonente boobu sallallahu alayhi wa di leen nuyu di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu xaq di ñaan yàlla subhaanahu wa mu jéggal ñu suñu rëcc rëcc te nangoo ñu suñuy jaamu yàlla niyoo boobu ak ziar boobu ak ndokkeel gi ñu koy ndokkeel ñëpp nag ñi nga xam ne ñoom la yàlla dogal nu bokk liggéey bu sell bii muy góor ñi ak jigéen ñi boroom xam-xam yi ak woyu teelu yi nekk ci biir ñëpp ñoo leen koy boole di jël niyoo boobu ak ziar boobu rek di ko teg ci loxol suñu kilifa gi. ay cheikh abdul ahad mbakke di ñaan yàlla subhanahu wa mu yàggal ko ci suñu kanam lu baree baree bare te li mu bëgg a liggéeyal moom xadim rasul lépp yàlla defal ko kàtt nag mu am jëlu ko njortam te nu ànd ak moom kon bu ko defee tey ñu ngi jéem tàbbiwaat rekk ci liggéey bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dolli ñu defal tawfiq dolli ñu ci dimbali bi jaay seydna muhammad sallallahu alayhi kon tey xam naa li ñu tàmbalee liggéey bi rek mooy ab laaj bu am solo boo xam ne bii soxna Xadi Ñaŋ moo ko fi tàbbal di ko laaj mu jëm ci ay tomb yoo xam ni yu ama am solo la ndax moom mi ngi laa ci eh, njariñal tudd tur yàlla yii di ko baamu di ko wax lu bari di ko sikkar maanaam eh, du ay tur sax waaye maanaam baat yi nga xam ni moo gën ci lépp lu ñuy tudde yàlla rek moom la muy lu mel ni albasmalatu muy bismillahi rahmaani rahim ak alhaylalatu muy baatab laa ilaha illallahu muhammadu rasulullahi ak at takbiraatu muy wax allahu akbar ak at taxmidu te alhamdulillahi rabbil alamin ak istigfaar te ngay wax astagfirullaha ak at tasbiix te ngay wax lu bare bari ci saw làmmiñ subhanallah moom soxna si ñoo ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla na ko yàlla dolli dimbali dolli ko taxaw dolli ko fi tawfiix defal ñu ko ñun ñëpp wax dëgg yàlla bëgg na lu baax lool lu baax yitteel na ko te it rawatina liggéey bii nu séq wax dëgg yàlla mu koy bàyyi xel lool mu yitteel ko lool te di ci taabale ay laaj yoo xam ni wax dëgg yàlla saa bu ko ci tàbbalee rek maanaam dañuy gën a sawarloo ci liggéey bi dañu koy gën a bëggloo ndax dañuy soññ lool ci taxawaay boo xam ne bi taxaw na ko ndax nene moom baat yi ma doon wax nii boo ci jël rek maanaam ne moom da ko séddale ci semaine bi bés bu nekk maanaam dina ci jël benn ci tomb yooyu ma doon wax maanaam wax ci ab lim bu takkoo takku boo xam ne bii da koy def nga xam ne da koy maasale bés yi semaine bi yëpp muy juróom-ñaari fan yi nga xam ni moo di semaine bi kon loolu wax dëgg yàlla bu ko soxna yittewoo yàlla defal ko taw tawféex muy liggéey liggéey bu toll loolu moom lu ama am solo la wax dëgg yàlla ñoo ngi ko ci ndokkeel bu baax di yàlla di ñaan yàlla lépp loo xam ne lii mu ngi ci njariñal biir tur yooyu rek eh, yàlla na ko ko yàlla defal te defal ñu ko ñun ñëpp bi sayyidina bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama comme ni ma ko waxaan rek mooy moom dane bis mu nekk bismillahi rahmaani rahim da cay defal lim bu takku sax la ca wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mu def ci ay ab lim bu takku allahu akbar noonu alhamdulillahi noonu astaghfirullah noonu subhanallahi wa bihamdihi noonu bu pare it asalaatu ala nabi moom itamit doonaat beneen ponk boo xam ne bu ama am solo moom itam da ci def ab lim la wax bu bari noonu la ko séddalee ci semaine bi noonu mu ko séddalee ci semaine bi nag ba bés bu nekk mu jagleel ko di di ca wax ab lim bu takkoo takku loolu day lay lay laaj eh, ay njariñam loolu moom njariñi tudd baat yii muy zikrullahi nga di ko fàttale koo yàlla moom li mu làmboo ci ay njëriñ moom maanaam mënee su lim mënee su koo xam waaye ki koy zikkar di ko wax ci xol bu sell ci yéene ko jaamoo yàlla daal na xam ne moom bu ko yëgee ak bu ko yëgut yàlla nga koy defal ay xéwal ak i tawféex yoo xam ne yii maanaam ci leer ak tri yu sell yooyu muy tudd rek ca la koy amee su ko defee dañ naan bokk na ci njariñ yi di ma comme lu mel ni boo jëlee baatab subhaanallahi subhaanallahi boobu dañ ne warada fi fadaili tasbihi wa ajrihi annahu min afdalil kalaam rot na ñu wax ci ne bokk na ci ngëneeli wax subhaanallahi daal ak pay nga xam ne gi moom la ci yàllay fay ki nga xam ne gi da ko saxoo di ko wax walla boog mu di ko wax lu bari ne moom lépp loo xam ne lii doomu aadama mi ngi wax ci am làmmiñam rek mu doon lu baax doon loo xam ne lii ngëneel la ne ne baatab subhaanallaahi boobu ci ngëneel yooyu ci ca la ca gën ca la bokk wa ahabbihi ilallaahi tey ne lépp lu nit ki génne ci làmmiñam itam mu doon loo xam ne lii lu ñu bëgg la yàlla bëgg ko yàlla sopp ko subhanallah dafa bokk ci ya nga xam ne moom la gën a bëgg moom la gën a sopp ngir lu ñu tegtaloo ci lenn ci njariñal baat boobu muy subhanallah yi mooy xadis bii ma bëgg a wax nga xam ne yonente bi sallallahu wa sallam moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ahabul wala ilaha illallah wallahu akbar dafa am xadis bu leer naññ bu wér cëng ci ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne daal euh, wax yépp buñ ko boolee la ca yàlla gën a bëgg lam ca gën a sopp mooy ñeenti baat yii muy subhaanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ba tey mu waxaan ne wa yuaddu tasbihu min anwaai sadaxati lati yatasaddaxu biha al muslim an kulli mafsalin min mafasilihi shukran lillah ala hadihi niam allati lawlaha lamastataa al insanu an yataxarraka aw yunjiza amaluhu ne na bokk na ci njariñ yi nga xam ne subhanallahi da lamboo ne dafa bokk ci xeeti sarax yi nga xam ne yii ab jullit da ko war di sàkk sarax di ko joxe bés bu nekk ci bépp euh, point boo xam ne bii dafa nekk ci aw yaramam maanaam mafsal buñ koy wax mooy yàlla ni mu taqale yaram wi noonu yaram wi di mën a banku di mën a tàlli di mën a wëlbatiku nga xam ne daal niñ ko mën a misaal mooy ku mu doon ci ñun ñi yàlla bind na ci yow saw ci saw yaram ay jumtuwaay yoo xam ne yii lépp loo xam ne lii maanaam moom ngay def rek am na jumtuwaay bu yàlla sàkk ci sa yaram maanaam jumtuwaay boobaa mooy tax nga mën a def loola masalan gis bi nga xam ne bii dañ koy gis muy suñu bët yi yàlla dafa sàkk ci ñun dafa sàkk defal na jumtuwaay boo xam ne bii mooy tax bu nu bëggee gis ñu mën a gis dañuy sàkkal ab jumtuwaay boo xam ne bii moo yor wàllu dégg gi sunu bëggee déggit bu nu dee dégg jumtuwaay booboo tax muy daal lépp loo xam ne ni daal doomu aadama da koy def moo xam day noyyi moo xam day wax moo xam day xool moo xam day dégg mooy lu muy def rek maanaam yàlla def ay dafa def ay soldaa ci biir yaramu doomu aadama yoo xam ne bu ci nekk daa am loo ca féetewoo ne ne nag euh, cër yooyu nu yàlla defal muy machine yooyu yàlla mooñaale ci suñ biir yaram yi nga xam ne lépp lu ñu def rek maanaam machine yooyu maanaam ñooy tax nu ma def loolu ne danoo war ñun doomu aadama suba guñ xëyee euh, machine yooyu maanaam ñu ci sàkk sarax di ko def ngir sante ko yàlla ndax ne ne euh, te ne ne wa shukuru fi zalika yakunu bi sadaxati te ne ne yooyu liñ ci war a sant yàlla mooy maanaam ci ab sarax rek lañ ko la tënku kon cër yooyu nga xam ne mooy appareil yi nga xam ne mooy tax nu mën a def li ñuy bëgg a def biñ ko nattee bi ñu ko wàññee borom xam-xam dañ ne ñetti téeméeri appareil la ci biiru yaram ak juróom fukki appareil ñetti téeméeri appareil ak juróom fukk la nga xam ne moo tax lu ñuy mën a def rek nun doomu aadama nu mën koo def te ne kon doon na jafe ji lool ci nit ki suba bu xëyee maanaam mu joxe ñetti téeméeri sarax ak juróom benn fukk ci bés bu nekk waaye loolu lay wax ne illa annahu yasubu an yatiya al mar'u bi thalathi miatin wa sittina sadaqatan fil yawmi dina jafe ci doomu aadama bi lool ci moom suba bu xëyee mu mën a joxe saraxab ñetti téeméeri sarax ak juróom benn fukk ne ne walisa jaalallahu tasbiha sadaxatan rahmatan bi ibadihi nee na looloo tax euh, baatab subhanallahi ñetti téeméeri sarax yooyu nga xam ne dañ ko waran di saraxeel suñu appareil yu bés bu nekk ak juróom-benn fukk yàlla daal dina koy defal yombalal nu ko ci benn baat boo xam ne bii buñ ko waxee rek maanaam mooy taxawu taxaw sarax yooyu nga xam ne yi moom lañu waran di saraxe bés bu nekk benn baat bi muy subhanallahi daal di remplacer ñetti téeméeri sarax yooyu yëpp ak juróom benn fukk ngir yërmaande joo xam ne ji yàlla da ko def ci nun bu ko defee lool itam lañ cay tegtaloo dane waxat warada fi dalika xadisu nabii sallallahu alayhi wa sallama id xaala yusbihu ala kulli sulaama min ahadikum sadaxatun fa kullu tasbihatin sadaxatun gis nga yonente bi ne cër yooyu ma doon wax muy mën nañu wax ne appareil yooyu nu yàllay defal mu yëm nu defal ci sunu yaram wi te muy ñetti téeméeri appareil ak juróom-benn fukk sall sayduna Muhammad ne ne ku xëy doomu aadama bu xëy rek maanaam na xam ne appareil bu ci nekk war na ko joxeel ab sarax kon ne ne maanaam saa boo waxee subhanallahi rek muy baat bu gàtt rek eh, lay day daal di taxaw taxawaayam sarax boo xam ne bii moom nga waroon a saraxeel cër yooyee wa tasbihu ahadu asbaabil maghfirati teyit bokk na ci njariñ yi wax subhaanallahi sallallahu alayhi wa moom baat boobu bokk na ci sabab yi nga xam ne lay waral nit ki am njëggal yàlla xaala sallallahu alayhi man xaala fi yawmin subhaanallahi wa bihamdihi miata maratin xuttat xataayaahu walaw kaanat misla zabadil baxri seydina muhammad ne ne bépp jullit boo xam ne bii xëy na bés bi mu wax ci subhaanallahi wa bihamdihi téeméeri yoon ne lépp loo xam ne lii amal na ko ci ay ñaawteef maanaam defal na ko ci ay bàkkaar rek ne ne bàkkaaram yooyee ba mu waxee subhaanallahi wa bihamdihi téeméeri yoon rek lañ ko daal di sippil bàkkaaram yooyu yëpp maanaam mu tàggoog moom te nee na yooyu lu mu bari bari ba mel ni ba tolloog duusi géej gi sax maanaam géej li muy duusu bu na bàkkaaree bare soo xëyee wax subhaanallahi wa bihamdihi téeméeri yoon ne ne yooyu dangay ngay daal di tàggoo ak moom mu jeex tàkk ci yow kon lii ab tënk la boo xam ne bii lenn la ci njariñi baatam subhaanallahi buñ ko beree ci baat yi nga xam ne yi moom la soxna si doon wax naan da koy zikkar ci bés bu nekk beneen baat biñ ci tegaat mooy astaghfirullah muy fawaidul istighfar inna allaha waada ibadahu xaala istighfarihim bi nicmatayni an nicmatul ula an yumiddahum bil amwaali wa niamatu saaniya an yarzuqahum bi azurriyati at tayyibati bu ko defee beneen tomb biñ ci tegal mooy eh, baat boobu mu ci boole ne <coughs> day wax astaxfirullah itam am na bés bu mu koy wax ay nangami yoon nañu xam ne yàlla subhaanahu wa taala ne na jaamam yooyu nga xam ne yii dañuy wax astaxfirullaha digg na leen ñaari xewal yoo xam ne yii astaxfirullaha yow yu ñuy wax maanaam moo tax mu digg leen ko te yàlla moom euh, lu mu digg rek dina ko def euh, xéewal gu jëkk gim leen dig ci ñi bàyyi seen xel ci di wax astaxfirullaha xéewal gu jëkk moom mooy dina leen may alal yoo xam ne ji ju doy seeni yitte la waaye tamit beneen xéewal ba ca topp mooy dina leen wërsëgale ñu am ak njaboot goo xam ne gi gu barkeel lay doon bu daal wax ne xaala allahu taala fa qultu staghfiru rabbakum innahu kaana xafaara yursili samaa alaykum midraaran wa yumditkum bi amwaalin wa banina wa yajal lakum jannatin wa yajal lakum anhaaran loolu mu ne nag eh, ñiy wax astaghfirullah yàlla da leen di defal ñaari xéwal yii te mooy dañuy am alal dañuy am ak njaboot te yépp day am barke yàlla ci boppam moo ne fa qultu rab rabbakum man yàlla maa ne na ngeen jéggulu na sax di jéggulu seen boroom ndax seen boroom euh, ku mën a jéggalaate la maanaam ab jégalekaate ab jégale ab jéggale kon la maanaam ku mën a jéggalaate la bu la jéggalee sa ñaawteef ya nga xam ne yi moom la defa nan yursili sama aleykum midraaran ne ne day wàccee ci kaw asamaan am ndox moo xam ne mi ndox mu barke la muy doon lay doon moo xam ne mii maanaam lu ngeen ca jirég di ko bay day barkeel day doon alal ju baree bari joo xam ne ji da ngeen koy mën a jariñoo mooy wa yum dit kum bi am waalin wa banina di leen cay wutal ay alal yu baree bari waaye tamit di leen defal ay doom ak njaboot wa yajal lakum jannatin tey ne ne istixfaar yooyu dina sabab su ngeen faatoo maanaam mu tàbbal leen ca wuta defal leen feye leen koy ay ajjana yu baree bari yoo xam ne yii yu xiiwal lay doon wa yajal lakum anhaaran te ne ne it da cay boole defal leen mu doon a ajjana yoo xam ne yii maanaam day am Eh, ay dex yoo xam ne yi mooy daw ca ron néeg yooyee wala tabax yooyu nga xam ne moo nekk ca àjjana nga dëkki ko bokk na ci itam njariñal astaxfirullah ne ne sababun li nu nuzuli rahmatillahi ala ibadihi ne ne yërmande yàlla ji nga xam ne ji day wàcc ci kaw jaamam ñi nga xam ne ñi ñoo ci kaw suuf day yërmande jooju di wàcc ci ñoom day Euh, bokk na ca sababas lay tax muy wàcc muy astaxfirullah yi nga xam ne yii moom la jaam ñi ko nungul di wax di dellu ci seen boroom yàlla daal di wax ne lawla tastaxfiruuna allaha laallakum turxamuun te ngeen doon sax di jéggulu seen boroom ngir maanaam ci jéggulu gu ngeen di jéggulu seen boroom maanaam ñu dafa leen ca yërmande kon wal istixfaaru shifaun lil xulubi nee itam di wax ay astaxfirullah daal saafara la soo xam ne si maanaam day faj rag yi nga xam ne yi dafa nekk ca xolab ñi nga xam ne ñi dañoo saxoo di wax di wax astaxfirullah wa mutahhirar wa mutahhirun min ad-dunubi te nee it astaxfirullah daal ña ko saxoo di ko wax te sellal ko te yàlla tax ne su ñu amee ay bàkkaar astaxfirullah yooyu dina leen laabal ba ñu tàgguk seen bàkkaar yooyu nga xam ne yii moom lañu amoon wa sababun lin najaati minal halak te nee na it astaxfirullah dina tax ku ko saxoo di ko wax bépp alkaande boo xam ne bii day wàcc ci kaw suuf rek maanaam yow mën nga mujj ca alkaane go nga xam ne gi ma ngay wàcc moom astaxfirullah moomu yi tamitam ne ne sabilun ila dafil balaya wal mihan ne ne baat la boo xam ne bii ku koy wax yaa ngi aw ci yoon woo xam ne bii bépp balaa boo xam ne bii day nar a wàcc rek maanaam moom dala koy jiñal waaye tam yëppi coona ak i sànje yoo xam ne yi nar naa wàcc ci kaw suuf rek yow mi koy wax danga nga cay mën a mucc xaalallahu taala wa ma kaana allahu muazibahum wa hum yastaghfiruuna gis nga yàlla ci bopp ne ne man yàlla day duma leen buggal mukk duma leen teg ay balaa mukk duma leen teg ay coono yoo xam ne dangeen ngeen cay sonne lool feek yéen a ngi sax di ma jégglu kon bu ñu maas woon ñun ñëpp di def ay astaghfirullah di ko wax ne bu boobaa yàlla ne ne duma leen masa mbugal duma leen duma waaye itam ne ne wa fiihi iqtidaaun bi nabi sallallahu alayhi wa ne ne ci di wasta wax astaghfirullah itam ku koy def na nga xam ne maanaam yaa ngi koy roye ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam id kaana rasulu sallallahu alayhi wa sallam kathira al istixfaari laa yatrukuhu fi laylihi wala naharihi ndax ne yonente bi kat sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moo gën lépp lu yàlla bind te moo nekkan ki nga xam ne ki yàlla da ko doon topp mala dara dara dara ci ay bàkkaar moom ku bare woon lu muy wax astaxfirullah la ne daw ko bàyyi ak guddeem daw ko bàyyi ci ay bëccëgam kon yow jullit bi kon nga xam ne yàlla danoo sant nu war a roy ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon war nañu ko roye ci di wax ay astaxfirullah yu baree baree bari ci suñuy guddi ak suñuy bëccëg iz kaana eh, xaala sallallahu alayhi wa sallam istaxfiru fa inni astaxfirullaha wa atubu ilayhi kulla yawmin mi'ata marratin gis nga ci sallallahu alayhi wa te yërmandeem ja dafa daal di wax ne na di jéggulu seen boroom yéen ñi nga xam ne ñi gëm ngeen seen boroom man mii du Muhammad day doon ndawal yàlla loo xam ne daf ma yónni ci mbooleem nit ñi suba gu ma xëyee dina wax astaxfirullaha wa atubu ilayhi téeméeri yoon teg dégg nga naa la mooy nga xam ne kii moom la yàlla ne ko inna fataxnaa laka fatxan mubinan li yaxfira ma allahumma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara kooku nga xam ne yàlla da ko ne donte am nga ay ñaawteef itam ya ca jëkk ya ca mujj yépp et baal naa la ko te ne man suba gu ma xëyee dina wax astaghfirullah mooy maa ngi jéggul yàlla te di ko tuubal maanaam di tuub jëm ci moom lu mu néew néew ma ne ne dina ko def téeméeri yoon moom Seydina Muhammad kon loolu itam wala walakum fi rasulillahi iswatun xasanatun dana danoo doon yoo xam ne ñii lépp loo xam ne lii yonente bi da ko doon def rek loola maanaam ñu di ko ca roy kon euh, loolu tamit ab tënk la boo xam ne bii ci njariñi astaxfirullah lu ca néew néew la kon euh, lii ñu wax fi yépp sax nag li muy néew néew néew benn boo ci jël rek maanaam <clears throat> war naa jar nit ki jéem a saxal suba bu xëyee di wax ay astaxfirullah yu baree bari yoo xam ne lu mu ca mën ca kem kàttanam rek maanaam mu di ko def ngir mu jot ci njariñ yooyu nga xam ne yi yàlla euh, denc na ko ci biir euh, baat boobu muy astaxfirullah kon dañuy jéem a jàllaat rek ci beneen tomb bi nga xam ne ba tey rek ci laaj yu am solo yi nga xam ne yi moo jóge ci soxna Xadi Ñaŋ rek ci lañ nekkale ba tey muy beneen tom bi ci des muy fadlu dikrillaahi mooy tudd yàlla muy laa ilaha illallahu muhammadu rasulullahi moom itam ñu jël ci lu néew ci ngëneel yi nga xam ne yii eh, am na ko moom baat boobu moom itam mu ne yassarallahu li ibaadihi baadal ibaadaati yarfa'uhum biha yàlla daal ca yërmandeem ja yombalal nanu nun jaamam ñi yenneti jaamu yoo xam ne nene na ngeen ma koy jaamu mu doon lu yomb lool te jaamu googa la muy yomb yomb lépp kat nene buñ ko dee def maanaam dañu ci yëkkati lool maanaam dañu ciy defal ay daraja yu kawe kawe aki i leer wa yusibuhum alayha te nene it jaamu yu yomb yooyu yàlla ne dee leen ma ko jaamu buñ ko dee def maanaam dañu cee defal ab yool bu baree baree bari wa yootihim ajran kabiran tey ne dañ cey defal ak pay goo xam ne gii gu rëy rëy lay doon te ne ne wa min zalika zikrullah ne ne bokk na ci jaamu yàlla yu yomb yooyu nga xam ni moom la yàlla moom la nu yàlla sant ne dee leen ma ko jaamu te dignu ci tomb yu am solo yooyu ne bokk na ca muy zikrullah mooy tudd yàlla te mooy ngay wax ci saw làmmeñ laa ilaha illallahu muhammadun rasulullahi fa zikrullahi waaxidun min ajallil ibadati ne tudd yàlla googu benn la ci jaamu yàlla yi nga xam ne yii ñoo gën a màgg wa afdaliha fil islaam te ne na dafa bokk ci eh, eh, jaamu yàlla yi nga xam ne yii moo gën a am ngëneel ci sunu diine islaam ji nga xam ne ji moom la ñuy jaamoo yàlla ne ne wa min fadliha an allaha wasafa biha ibaadahu wa adaafa alwasfa ila nafsihi te ne bokk na ci ngëneel ak e, baat boobu muy laa ilaha illallah muhammadun rasulullah e, yàlla dafay wax ne Ehm, dane yàlla da ca dako melale jaamam yi maanaam muy zikrullahi maanaam azakirina laahaja na ne jaamam yi nga xam ne yii dañoo saxoo di tudd baat boobu yàlla da leen a tàgg maanaam ci melal leen ne ñoom daal ñuy bari luñ may tudd lool lañu ba pare neneen ne noonu nga xam ne ne ay tuddkati yàlla lañu maanaam euh, melokaan woowu mu leen melal mu daal di koy idaafa maanaam mu boole ko ak boppam maanaam turu boppa wa mooy aaya bi may wax mu ne is xaala wa zakirina allaha kathiran da nga ne loolu mooy melokaan bi nga xam ne melal na ko ñii tudd yàlla euh, allaha ji mooy mu dolli ko ci euh, turu boppa wi gis nga daal leen boole ñoom ñaar muy ñi koy tudd ak moom yàlla mu boole leen dara doxul seen diggante mu ne wa zakirina allaha kasiran ak ñi nga xam ne ñii dañuy tudd yàlla lu bare bare gis nga tudd kat yi yàlla yi gis nga ñi nga xam ne ñi tuddkat yi yàlla ñu tuddkat yi mooy melokaan wi yàlla ji mooy moom yàlla ci boppam ne neen gis nga nim leen boolee ñu daal di sasoloo dara doxul seen diggante kon yow booy sax di zikkar di tudd yàlla rek man ngaa jàpp ne yow fi mu ne yow dara doxatu sa diggante ak yàlla daal di cay boole wa zakiraati ak ña nga xam ne ñu jigéen lañu jënam gis nga ko góor ña ak jigéen ñi la wax ne na ñoo ñëpp muy góor ñi nga xam ne ñi dañoo saxoo wala ñuy wax di tudd yàlla lu baree bari ak jigéen ña nga xam ne ñi dañoo sax di tudd yàlla lu baree bari a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman ne na yàlla waajal na leen ak njëggal ci lépp loo xam ne dañ koy def ci ay bàkkaar da leen koy baal wa ajran aziman waaye itam da leen di baal ba pare tegal leen ci am neexal boo xam ne bii maanaam da leen cay defal ak pay goo xam ne gii gu màgg a màgg la gu rëy a rëy la wa min aadami fadaili zikrillahi na man yazkuruhu fi jamaatin zakarahu llahu indahu fi malain afdal te ne bokk na ci ngëneel li nga xam ni moo gën a màgg ci li tudd yàlla ne ki nga xam ne kii dafa nekk ci biir mbooloo moo xam ne mii ay doomu aadama lañu comme moom muy tudd yàlla ne saa bu koy def rek yàlla moom itam da tudd moom moomee fa moom yàlla da koy ci mbooloo moo xam ne mii mbooloo moomee moo gën moom mii mbooloo mi mu nekk nii di tudd yàlla kon gis nga ne boo nee fii ci kaw suuf ne ci biir mbooloo di fa sikkar maanaam di tudd yàlla ne jamono yooyu na nga xam ne yàlla itam ma nga lay tudd di di la seereel tudd ko nga koy tudd ci meneen mbooloo moo xam ne mii maanaam moo gën mbooloo mi nga nekk yow di tudd yàlla te loolu rek mooy day fekk ne ma nga fa ay malaaka yu sell malaaka yooyu yërmaande yoo xam ne yii bu jaam di zikkar yàlla itam di zikkar di la tudd di leen ko seedeel sallallahu alayhi wa sallam ne na itamit tudd yàlla yurisul abda maayatallaahi fii kulli waxtin ne tudd yàlla dal jaam bi koy def yàlla dina ko ca maye maanaam mu nekk ak yàlla la ñu naan inna allaha yàlla nga yàlla ngi ànd ak ñun ne kay zikkar di tudd yàlla ne ne zikkar googu muy zikkar dina ko may maanaam mu yàlla ci waxtu wu a doon rek maanaam nekk ak yàlla wa fi zalika xawluhu sallallahu alayhi wa yaqulu laahu ana inda zanni abdi biya wa ana maahu ne man yàlla daal maa ngi ànd ak sama jàmm ci kaw ni muy njorte kaw li muy njort ci man wa ana maahu ne fu mu mën di nekk rek boo ma dee fàttaliku maa ngi ànd ak moom ida zakarani ne ne fa in zakarani fi nafsihi jaam bi bu wéetee wala mun ne ci biir mbooloo sax waaye mag may fàttaliku di ma tudd ci am xelam dakartuhu fi nafsi ne ne man yàlla dama koy tudd ci samam xel wa in zakarani fi malain su nekkee ci biir mbooloo moo xam ne mi ay jëm muy doomu aadama ñu di ma tudd dakartuhu fi mala in xayrin minhum ne ne ma itam na yëg man yàlla maa ngi koy tudd ci mbooloo moo xam ne mi moo gën mbooloo mooy mu nekk moom doomu aadama bi di ma tudd kon ne ne inna tasbiha wa tahmida wa tahlila wa takbira najaatun lil mumini fi dunya wa malazun fil axirati bil maxfirati wal ajril azim kon daal na ne baat yi nga xam ne ni moom la soxna si rootale laajam yi laajam bii buñ ko doon tënk daal dañ ko naan loolu nga xam ne li mooy subhaanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar ak astaxfirullah ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa daal ne mooy li nga xam ne lii moo gën a gaaw ci musal julli bi ci àdduna teyit ne day doon bu àllaaxira ab wéeruwaay bu dëgër boo xam ne bii lépp loo xam ne lii nar na ko jaaxal ci àllaaxira rek ñoom ñi dañuy taxaw daal di koy musal ca loola mu daal di cay mucc mu am njéggal ak yàlla ak pay goo xam ne gii eh, yàlla da ko koy fay su ko defee ne tanxusul xata buñ koy defab tënk rek mooy waaw kon baax na waaw bu ko defee buñ ko tënkee noonu rek ci baat yooyu daal mu doon lu néew nag ci li nga xam ne lii moom la làmboo ci ay njariñ nga xam ne benn bu ci nekk rek da doon doy sëkk rek maanaam la ca yàlla digg jullit bi waran koo jaral mu nekk yitteem yoo xam ne yi saa bu nekk da cay farlu di ca taxaw bu baax a baax a baax kon dañu dem ci benn tomb bi nga xam ne bii rek moom la ñuy teg te defe naa mooy mujj ci laaj yi nga xam ne moom la soxna si laaj muy fawaidu salaatu ala nabi yi ne da ci boole di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa laaj muy njariñ yi nga xam ne yii moom la yàlla denc ci biir julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa su ko defee moom itam dañ ko naan bokk na ci njariñ julli ci yonente bi day imtisaalu amrillahi taala muy eh, ki nga xam ne kii julli ci yonente bi na xam ne mi ngi def loo xam ne lii ndigalal yàlla la ndax yàlla subhaanahu wa moo wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi daa dina yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman gis nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am solo lool ndax nit ki bu koy def maanaam mi ngi koy defandoog yàlla eh, mi ngi koy defandoog malaaka ya te ma ngay def ndigalal yàlla ndax bi yàlla ne man yàlla ak samay malaaka day noo ngi ànd di julli ci yonente bi yéen ñi nga xam ne ñu gëm ngeen ma kon na ngeen di julli ci moom kon jullit bu ko yàlla defalee tawfiix muy julli ci yonente bi ma nga euh, ma ngay def ndigalal yàlla muy tomb biñ ci njëkkee ca njëriñ ñaareel ba muwaafaxatullaahi fi salaati alayhi gis nga comme ay bi noonu mu tënk woon mooy dangay am tawfiix yi ànd ak yàlla ci julli googu xam ne gi yaa koy julli ci yoon tamit saa boo koy def xamal ne yaa ngi yàlla yéen a koy defandoo ak i malaakaam bokk na ca mu waafaxatu malaaka di mooy li doon wax noonu gis nga fiiha jàppal na it yaa ngi malaaka yéen a koy defandoo bokk na ca xusulu ashri salawaatin minallahi alal musalli maratan bokk na ca njariñam ki nga xam ne kii dafa julli ci yonante bi benn yoon na xam ne saa su jullee ci yonent bi benn yoon rek yàlla julli na ci moom moomu fukki yoon yarfau lahu ashra darajatin nen itam yow mi julli ci yonent bi saa boo jullee ci yonent bi benn yoon rek xamal ne yàlla defal na la ca fukki daraja maanaam yëkkatil na la ca fukki daraja yaktubu lahu ashara hasanaatin ki julli ci yonent bi benn yoon itam yàlla da ko cay bindal fukki tuyaaba fukki yiw yumha anhu ashra sayiatin ki julli ci yonent bi itam saa bu ne saa jullee ci yonent bi benn yoon ñu baal ko e, fukki bàkkaar yoo xam ne yi defal na ko e, tusidu duaa ila rabbil alamin julli ci yonent bi itam ne ñaan gi xam ne gii moom la ñaan yàlla julli ci yonent bi mooy doon li nga xam ne moo koy yëkkati muy dem ca sunu boroom bu ko defee ne ne tamit sababun li shafaati nabii sallallahu alayhi wa sallam julli ci yonent bi bokk na ci ay njariñam bu bés penc ba ba njàqaree tar lool yàgg lool métti lool ràmm goo nga xam ne gii moom la Seydina Muhammad di ràmmu jaam ñi ngir yàlla àtte euh, leen ba ku ne dem fa nga war a dem ne ne ku gënoon a bari euh, loo xam ne lii moo nga dum julli ci yonente bi rek fii ci àdduna ne su boobaa ràmm moom maanaam muy gën a teel a ñëw ci ñoom ci ñi muy jëkk a ràmmu ca ngay bokk sababun li xurbil abdi min an nabi te fii ci àdduna euh, su bés penc ba na xam ne day bokk ci ñi nga xam ne ñi ñoo gën a jege yonente ba sababun li nafil faqri julli ci yonente bi sit na dina tax nit ki su nekkan koo xam ne ku ñàkk la itam ñàkkam googu julli gi mu julli ci yonente bi dina tax yàlla tàggale ko ak ñàkk googu sababun li wufuuri nuuril abadi ala siraati te ne moom julli ci yonente bi itam dina sabab nit ki saa bu demee bay jéggi siraat euh, yoon woowu ñuy jaar di dem ca taxawaay bés penc ba mu doon ab jaarwaay bu doy waar ne ne kiy julli ci bi sallallahu alayhi dina tax mu mu am ak leer gu bare bare goo xam ne gii buy jéggi siraat maanaam da ko koy leeral ba mu mën a jéggi siraat jéggi boo xam ne bii bu gaaw a gaaw la kon soxna si ñoo ngi koy delloo doo leen ndokkeel bu baax a baax di ñaan yàlla dolli ko defal tawfiix defal ñu ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa laaj yi mu tàbbal laaj bi bi mu tàbbal moom amati na solo lool lool lool ko defee mbokk yi tamit euh, point yi ma doon wax nii moom géej la goo xam ne bii ku mu doon ci ñu rek dafay mel ni da ngaa yor mbaal goo xam ne gi yaa ngi dugg ci biir du bokk ak la ngay jàpp du bokk la ci sa morom di jàpp tomb yi nii. mbokk moom doon ñun rek kom naa luñ ci gën a mën a yaatal rek ndax fu ma ci yem rek ku mu doon ci borom xam-xam yi rek mën nañ fa tàmbale waxaat yi yeneen njëriñ yoo xam ne ni moo ëpp lu baree bari lii ma ci wax ni ci yi maanaam euh, bu mu ci mën a doon rek ci nga xam ne yii euh, moom la soxna si rotal fii kon nit ñoo ngi ci dagaanat yi di ci yelwaan rek mbokk yi lu ci waaye gën a mën a yaata rek ca njariñ rek jàppale leen toujours ñu nga jàppale ñu ci bi jooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi beneen laaj bi ci topp mbokk moo ko fi tàbbal maanaam jëwriñ ji nga jëwriñ ji bokk ci liggéey bi la waaye dafa wax ne moom daal mbokk rekk mbokk la nu adressé kon mbokk ñoo lay dalal di la ziyaare bu baax a baax di ñaan yàlla doon leen defal tawfiix mbokk dafay laaj ne lubsu siyaab bi an najis hal yujibul xusla day laaj ne ndax waaw ki nga xam ne kii dafa sol ay yére yére ya am sobe la bopp dafa tëdd ak sëriñam ñu jote te jamono jooju mi ngi sol yi ay yére xam na yére ya kon euh, am sobe nga ne benee ba yére yooyu bu ko jëlee sol ko ndax sol googu mu koy sol euh, dina waral mu sangu farata te sax sëyaatul sax waaye daa solaat yére yi rek kon loolu liñ ci tontu mbokk rek mooy dañ ko naan laa laa yujibu lubsu siyaabin najis al xusla li nu jàngagun ci fiqh daal bu dee ci wàllu sole la jël ay yére yoo xam ne dafa taq sobe rek nga sol ko daal du tax nit ki war a sangu farata ndax jàng nañu muuji baatul xusli ci ay bunt yu baree bari de waaye muy maanaam liy waral sangu daal jàng nañ ko ci ay bunt yu baree bari ci fiqh di gëstu itam waaye gisaguñu fenn fu nu jàng ci fiqh mu ne ay yére yu sobe yu taq sobe daal ku ko sol da war a sangu farata lool moom wax dëgg gisaguñu ko xam na ñu gën cee def gëstu bu baax a baax rek yàlla ñu yàlla defal tawfiq jay seydna laaj bi ci topp sëriñ Bachiru Fay moo ko fi rotal ñoo koy ziar bu baax a baax moom dafay laaj xukmu iqamatil marati dafay laaj ndax jigéen buy julli war naa liqaam naam waaw laa yushrau lil mar'ati al iqamatu wala al azan fi salaatiha fiq dafay wax ne jigéen daal bu dee julli moom du noddu du liqaam faza min sha'ni rijal ne ne bu dee ci wàllu julli daal ay nodd ak liqaam la mbiru góor ñi la góor ñaa ñuy sant bu ñu doyee daan mbooloo nañu noddu na am ko noddu bu ñuy bëgg a itam nañu liqaam waaye bu dee jigéen la jigéen moom day ñëw rekk daal di tàbbi julleem kàbbar daal di tàbbi ci julleem waaye teguñu ko ne ko del liqaam wala del noddu bal yu sàllina bi dooni iqaamatin wala adaan lay seen warteef dal mooy nañu julli ñoom soxna ya waaye buñ ca boole ak noddu waaye buñ ca boole liqaam itam kon daal loolu mooy li nga xam ne lii ci wàllu taxawal ak jigéen daal euh, moo cay atte ba du ñu liqaam du ñu nodd jàll laaw la nag tawfiq yeneen laaj yi ci topp al oustaz xaadim ñing moo ko fi rotal oustaz ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la ndokkeel di kontaan bu baax a baax di bëgg sa taxawaay ak sa yittewoo diine ak sa yittewoo xam-xam ak sa bëgg lu baax yal na yàlla doolay jàppale defal ñu tawfiix bi jaay sina muhammad sallallahu alayhi am nañ ci ab yëg ab yëg-yëg bu baax a baax a baax yal na nu yàlla doolay defal tawfiix suñu xaadim dafay laaj ne xukumu xusli rijli al maqtuati fil wudu dane koo xam ne kii ab tànkam dafa dagg buy jàpp ndax tànk boobu dagg noonu maanaam da koy boole ci njàpp ma maanaam da koy raxasaale mooy laajam bi nga xam ne bi mooy bu jëkk dañuy wax suñu xaarim ne ko al maqtuu rijli yaxsilu aada al wudui faqat wa rijlul baaxiyatu amma al maqtuatu fala yaxsiluha ma damat maqtuatan fawqal kaabi ne ne ki nga xam ne kii ab tànkam dafa dagg ne ne buy jàpp cëri njàppee rek lay jàpp ak benn tànk ba nga xam ne bii maanaam moo des daggut waaye bu fekkee ni benn tànk ba dafa dagg du ko raxas bu fekkee ni dagg-dagg ba eh, dafa yóbbaale dojor ya maanaam dafa dagg ci yeel bi foo xam ne fii daal dojor ya àndaale na ci la dagg muy ndëggul tànk li boo ko xoolee ñaari yax yi nga xam ni moo tiim dëggul li benn bi ne ci côté ndeyjoor bi ci des na ci wetu càmme muy ñaari yax yooyu la wax ay dojor ne ne bu tànk bi daggee daal bu fekkee ni ndëggu dem yóbbaale ñaari yax yooyu su boobaa buy jàpp du ko ca boole wa isa baqiya min al rijli shay'un min al fama taxtahu yajibu xasl haza albaaxi ne ne nag su fekkee ne tànk bi ni mu maanaam ci ndëgguli la dagg masalan mu xaañ ndëgguli ca kanam bàyyi fa yax yooyu ma doon wax te mooy dojor yi ak li nga xam ne lii moom la ñaar yax yooyu tiim mu des ci ndëggul tànk la nag ne su booba loole des noonee ànd ak dojor ya ca tànk ba da koy raxas kon daal ki nga xam ne kii tànk bi dafa dagg su fekkee ni dafa dagg ci yeel bi dëggu la dem ànd ak dojor ya muy yax ñaari yax yooyu séq tànk bi noonu ci suuf tiim ndëggul tànk li ne ne su demee maanaam boobu tànk kenn du ko raxasaale kenn du ko jàppale waaye nag su fekkee ni ndëggu li dafa dagg ci kanam dojor yi des ci ak li nga xam ne moom la dojor yi tiim muy yax yooyu su boobaa buy jàpp da koy eh, jàppaale beneen bi ci desaat ba tey suñ xaadim mu ne bu fekkee ni nit ki tànkam dafa dagg noonu ñu defaraat ko beneen tànk boo xam ne bi dañ ko liggéey maanaam doomu aadamaa ko liggéey tànk boobu lan mooy atte ba ca njàpp ma daanaka boo koy xool mook fee rek su ñu ndax ne ne isa kanat maqtuatan wa dahabal kaabu wal xadam wala bistah makanaha xadaman sinaiyan fa laysa alayka rasluhu ñu ne ab tànk bu daggee eh, dojor ya ànd ca dem maanaam dëggu la ànd na yax yooyu ma doon wax dem eh, ak aw ànd na ak dëggu ga dem maanaam fi ngay teg sa tànk ci suuf dafa dagg ànd ak dojor ya dem comme nam ko waxeen fee su ko defee ne ne kooku buñ ko wutalee tànk boo xam ne bii tànk buñ liggéeyee mu di ko monte ne su boobaa du war a raxas tànk boobu nga xam ne bii maanaam moom la monte wala tam saxoo alal xadam asina it ndëggul bu dee ndëggu la itam nga xam ne ndëggu lañ ko monteel itam bu fekkee ni kaabu ba dem na muy dojor la dojor ya ak ndëggu la ne doo ko masaa itam ba tey kon daal foofu mooy bu fekkee ni dañ ko monté la tànk daal da ngay jël ca euh, atte bu jëkk bële mooy bi tànk bi daggee ndëgguli daa ànd ak ñaari yax yooyu dem ñu defal ko tànk boo xam ne wi da koy monté ne su boobaa du ñu raxas béréb boobu waaye du caagina it dañuy massa loolu nga xam ne lii moom lañ ko montel mu dip tànk waaye kon day daal di jël atteeb euh, bële mu waxan ca kaw ne rek nga xam ne noonu nga koy bàyyi maanaam du bokku ci cër yi njàpp ya kon yal nañ yàlla doola defal tawfiq bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen ذاك يدعى وهو ذاك يدعى لا فتاوى